mbokk yi safoo ànd ak programme yu ja defal nañ leen bu baax ci teewlu bi bisimila ci xabaar yi ab mbir mu doy waar moo xew fële xamante ni moo di hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye jamono ji nag ñi nga xamante ne ñoo di médecin ya ak directeur hôpital ba daanaka ci mbir mu métti la ñu nekk ndax ñi nga xam ne sax ñoo di médecin ya nekkoon ci grève di li nga xamante ne moo di ay prime ak indemnité mu mel ni ak directeur ba nag moom nee na daal du nangu benn yoon ñuy def wala sax ñuy salfaañe hôpital ba ndax ñi nga xamante ne daal ñooy médecin ya la ñuy def teguñu ko fenn waaye Paris daal dafa am ab xale boo xamante ne benn médecin daf ne dafa dee bu ñu yóbbu ko ci morgue ba fekk xale ba mu ngi dund te naka noonu it daal la ay waajuram ñëw ne pour di ko daal di préparer pour sax denc ko naka noonu lañ daal di nemmeeku ne xale ba ma ngay dund dara jotu ko ñu wax ci mbirum politique député Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne mooy wuyoo ci turu Matar Diop moom daal ab mbir daal la wax ne ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko dafa daal xamante ne yu lëndama lëndam moom Ousmane Sonko ma ko doon def ak ña nga xamante ne euh, ñoo di ay entreprise yoo xam ne dafa leen a digoon ne dina leen jox la nga xamante ne moo di ay pétrole bu ñu bu toogee ci li nga xamante ne euh, moo di bopp réew mi naka noonu moom mi nga xamante ne sax moo di député Benno Bokk Yaakaar bi na sax ci mbirum sécurité euh, famille nga xamante ne moo di leader bi di Ousmane Sonko mbir moomu daal ci la Ousmane Sonko nekk moom député Benno Bokk Yaakaar bi moo ko daal di xam xamle naka noonu itam ki nga xamante ne moo di Alioune Tine nekk njiital Afrika Jom seen tax moom daal nee na la mu bëgg mooy kàddu yi nga xamante ne député benn Bokk Yaakaar bi wax na ko ñu daal di ci ubbi ab l'enquête li ñu indiloon ci xabaar yi ci la ngeen jëf.